dem si guddi ay vingt heures ah, gars yi dañu fay ñëw mais en ce dama doon nelaw ba may nelaw nag ah, maa ngi dégg booy waa ji di koy saaga di mu diggi ma tiit sa ay nelaw ba ma jógee ah, génn ma dégg mu xëcc mu xëcc ko danaa génn dama lay si agent xaw ban agent wax nag exactement ma dégg ma naa ko agent si laa lay yóbbu man te ma génn ba bay génn solo mu mbubb sax ma génn ñoo taxaw fii naka lan la man ni ngeen def ba heure bi jotee doon dugg seen kër yi waaw dama lay yóbbu si agent léegi man te ma génn na ko non pardon sa a ñu ngi doon tëj bunti mais pareegul woon mun na ko génnal léegi à ce moment nag moom dafa dugg si biir ba mu dugg si biir maa ngi xool mi ngi mi ngi mi ngi xool si pegg pour lu mën a yóbbu daal pour lu mën a jël léegi man tamit ah, mais ba ma génn exactement damaa gis sa waay moom def na benn panique ndax dafa yaakaar ne man damay ñëw pour pour dal seen kaw mais ba ma gisee ma dugg ah, automatiquement moom am na benn recul bu mu def dafa daf si yàgg rek mu taxaw daal ne ko acca nañ dem garaaw nañ dem léegi waaye tamit beneen waay bi dugg si biir ne ko non non duñ dem commencé tamit saaga ma man tamit ba ma saaga man ma jël panique en ce moment man tamit ma ne ko non léegi faa ñu def mu ne ma ko léegi dañuy sama daal di génne ngi yóbbu leen ñoom automatiquement boo leen xool da xam ne ñu du ay policier ndax ñoom amul benn mandarga boobu a wane ne lii mm, ah, boo xamante ni lii moo wane ne ay policier leen mais man lu ma xamal ah, ñii du ay policier ah, ma gis waa ji ni muy saaga ndax policier wax dëgg yàlla bu fekkee dafay ñëw pour si nit war koy saaga mais li mu insulté moo bëri trop à chaque moment buy wax chaque moment bu chaque moment bu mu wax rek da nga dégg mu insulté léegi nag man fi ba ma duggee si biir ma ñëwee di waxtaan ak moom nga dégg mu ne ti ma ko léegi xam grawul léegi baa ma jël ma dugg si biir jël samay dàll yi dugg si biir ma mu duggee si biir di xool lu mu jël ma gis mais en ce moment nag booy bi jël nañ téléphone am man xaw moon en ce moment xaw moon euh, jël na ko wala jëlu ko ah waaw mooy booy bu fi nekkoon moom jël nañ téléphone mais man waxuma ne ma jël nañ sama téléphone léegi man te may dugg ci sama daal li maay dégg mu naan ma Omar mu naan ma ñii maanaam ay policier ma ko duñ ay policier mu ne ma noonu duñ ay policier ma ne ko xaaral ma ñëw bu ma ne walloo rek sàccoo rek rek waa ji tamit jël gaz bi rek yenu ko téye ko neen rek daw génn ak moom daa ne ko taxal oto kii bi ñu dem talal moto bi ñu dem. démb comme euh, nous pouvons le dire euh, démb vers 20h dafa am gàngu euh, malfra bu fi dugg comme ni ngeen ko gisee attaqué boutique bi nga xam mom mo nek ci koñ bi et puis bi ñu ñëwee dañ ko yuuxu ne ko police la police police lan moo tax tëjuloo à 20h mu paniqué ñu dugg ci biir bi ñu duggee ci lañ def seen forfait jël gazam defe naa jël téléphone portable dépouillé ko aussi comme ni ngeen ko gisee. lolu moy énième fois ay attaque yo xam ni ay dépouilles yo xam ne gàngu malfrats yi ñu ngi koy def malfaiteurs yi ñu ngi dugg quartier bi Cité Lamy di ko def euh, donc mu doon loo xam ne nii vraiment lu euh, doy waar lu méttee métti la parce que moment bi ñu toll euh, ci temps de crise sanitaire ñun ñëpp yaakaaroon nañu ne ñoom danañ xalaat leneen lu di dugg di dépouyer nit ñi malgré couvre-feu bi ak bon la police patrouille yi nga xam ne ñu ngi koy def loolu mu ngi am quartier Cité Lamy ba léegi et c'est defe naa la énième fois comme ni ñu ko waxee yu mel noonu di am démb su fekkuloon tey dëkkandoo yi ñu ngi fi peut-être le pire mënoon na xew mooy li nga xam ne constat bu am maire bi nga xamné ñu koy def euh, loolu lepp nak boo gisé xam nga problème insécurité mom moy li nga xamné yépp mom mo moo jur loolu tay koñ bi bo fi duggé à partir de 18 heures ñemewuloo génn parce que amul éclairage public moy première source de sécurité amuñu ko donc loolu lañuy ñuy interpeller les autorités locales ak euh, peut-être euh, l'État ñu jàppale ñu ci quartier bu mel ni Cité Lamy parce que war nañu mëna am éclairage éclairage public bo xamné tay bo génné à pareille heure nga mëna xam fi ci période couvre-feu ci ngeen ci lañ gënoon a sécurité parce que da nga naan à partir de 20, h peut-être police mu ngi euh, à proximité de la population mais on constate amèrement que ni tay am lolu amul gisuñu ko malgré patrouille malgré li mën di am yëpp euh, japp naané euh, war nañ mëna gëna déployer agents quitte à ce que sax ñu def des patrouilles yoo xam ne ni c'est permanent nit ñi di taxaw euh, par exemple koñ bu ne ñu def fa deux agents de police wala ay ay ay ASP yoo xam ne tey dañ assurer la sécurité des populations parce que mënuloo tëdd 20 heures alors que tu n'es pas en sécurité ay gang malfrats di fa dugg en plein jour di la dépouiller di def euh, nag sulul noonu ci koñ yu mel ni Cité Lamy euh, doy na waar trop